Wolof Njaay dafa ne lu yëngu lu ko yëngal la ko ëpp doole te man nag dama ne suma programme bi xaar leen ko Sahel Network TV rek lañ wax fii la yëpp da xoyam xoyame Sahel Network TV euh, business profile te lu ma bëgg a ñu waxtaanee mooy kooku di jigéen bi nga xamante ne macha allah jigéen ñu mën góor la muy Adam Dramé euh, moom dafa nekk di defar li nga xamante ne mooy pepper sauce. ne moom yi safi ox xarit jigéen ñi ah góor yi fi gën a a tànn

jot rek yomb kon nag euh, business profile dafa nekk koo xamante ne dafay dimbale yow entrepreneur si ak youth si ngeen xaar ko foofu noonu nag looy yëngu wax programme bi mu ngi ñëw everyday si 5 o'clock fii si Sahel Network TV xaar leen ko YouTube rek suñ ko dugalee rek yéen nee ma gën a nu aj leen loxo yi rek comme ni ko faral di defee. waaw ok thank you ahead and watch the clip uh, that is Aisha show here Network TV. dem si chicken yëpp am na ca. la la yow lii am na garlic. Uh-huh. Adam's pepper sauce ak ci biir. bell pepper ginger salt vinegar lime thyme. la la la kon nag suñ ko naree lim pour leen si xam mu ngay ñëw te ñu bàyyi ba mu jaaxal saf la def macha allah. wala gis nañ bi ci biir lan lañu expecté ne Adams mu koy préparé pour andeel ñu ko ci biir kër gi. waaw um, yëpp ay surprise la moo doon nag. waaw Adam mbiram yëpp ay. surprise la war naa gaaw. waaw incha allah eh. fii ba at bi di jeex dig naa leen ko ne beneen product. o mm-hmm. yeneen products incha allah rabbi. suñu yàlla bàyyee. Mm-hmm. Um, ak suñu sago. Mm-hmm. beneen products ak yeneen products dina ñëw. Mm-hmm. Um, bokk ci Adams Pepper Sauce and food processing. packaging bi so yeneen dina ñëw. please stay tuned for that. kon loolu moom na lu ñuy waxaat la. waaw parce que xam naa ne bu xasee accès si kër gi moom <laughs> dara du doy. <laughs> And I believe Nediga Diga Mongkok Jamba for uh, so many things that are innovative uh, uh, or uh, innovative ideas in the Gambia are mostly done by women. I don't mean to brag, but that's the fact, people.